waxi alkande la waxi ak réer la wax la joo xam ni sax eh, boo ko analyser xool ko ci yenn anam yi dana yegg sax ci génn ci lislaam ci kufur la gën a jege ka ñàkk kufur ndax eh, eh, munaasaba bi mu ko waxee ci xale bu jigéen boobu coow li bari lool ci moom jamono yi Eh, mu doon koo xam ne am na version yu ñu wax ni moom judduwul ci yoon comme judduwul ci yoon doomi njaalo la doomi njaalo nag ñaar ñoo njaalo mu juddu ca muy kañu ko askane ne mooy baayam te du baayam xaqiqatan donte moom eh, moom la moom ci ci mbani yupp kooku la juddoo Euh, ak ndayam gi nga xam ni moom ndayam la xaqiqatan kon ñaari njaalokat la mu génn ci seen diggante compare nag ñaari wéy juróom yooyu euh, ba koy ba leen di lëkkale ak wéy jur yonent bi loolu la ashukku aw ma sikki sàkk ne kufrun sarix ak kéefër la goo xam ni génne na nit ci lislaam ndax awalan mooy ni xadis yu bare bari ñëw nañu di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci juddoom gu rafet dale ko ci sunu maam Adama euh, fépp fu mu jaar rekk ba ni mu yeggee ci Amina ak Abdullahi yaa xam ci góor la wala ci jigéen la am po musuta dox ci diggante ñaar ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jaare ci seeni ndigg dale ko ci aadama siisa ba wàcc ci yonent yàlla idris ba ci nuux ba ci ibrahim ba ci ismail ba ci adnaan ba ci ñaari way juróom yooyu yu tedd yooyu euh, kon comparé ñooñu ak koo xam ne nee nañu du doomu yoon euh, way ay ñaari way juróom loola moom kufru la ndax euh, lor yonent bi la ci làmmeñ te ña nga xam ne yuduuna rasulallahi la ca yàlla wax ñëpp xam nañu ko dana génne nit ci lislaam e, irtidaat la murtat la wax ji ñaareel bi it e, lëkkale e, ñaari way juru kooka nga xam ni nee nañu judduwul ci yoon ak way juru yonent bi sallallahu alayhi wa loola comme ni ñu ko waxe léegi Euh, aw ma sikki sàkk ne irtidaat la murtat la anil islaam ndax yëpp yonent bi la fontoo yonent bi la suufeel yonent bi la sallallahu alayhi wa ndax ak réer mooy li ko sabab ndax dëgg la am na as wuute su am ci way juri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ci ni ñoom ñaar ndax tuub waaw kon dañu ne euh, comparé ñooñu ak wayjur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak laca nekk euh, ci ñàkke yonent bi teggin ci euh, ci ay ñaari wayjuram ci lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ñaari wayjuram ci ànd ak loola yëpp ñun dañu jàpp ni lii irtidaat la murtat la anil islaam ndax xazf la jam la goo xam ni da ko jubal ci wayjur yonent bi sallallahu alayhi wa sallama eh, ci seenug sange ci seenug jàpp ndax comparaison boobu mu def ñaar ñooñu ak ñaar ak ak ñaari wayjur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam